you léegi nag leer na lu jëm ci wàllu korite geek askan week nañuy def ñi nga xam ne rek fekk na leen àll nañuy def ba ñibbi ci seen ak njaboot Aly Ndiaye yëkkati kàddu di xam ne ne jamono ji nag bu dee ñooñee munta ñàkk am autorisation pour seeni déplacement moom ministre bi Aly Ngouille Ndiaye ma ngay expliquer yi nga xam ne rek ñoom ñoo bëgg ware ji seen kër te nar wu ci jamonoy mbas mile moom nag di ñaan jamono ji ñu bëri nag ñu des fa ñu nekk nag donte nag feetu ko korite gi am na solo lool waaye nag jamono ji am na ak woyefal guñ ci def képp koo xam ne nag bëgg nga wari mënut a ñàkk nag nga daal di sàkku ak boyal boo xam ne dina la may nga mën dem moom jëwriñ ji nag yile kàddu nag mi ngi ko yëkkati ci remise ay loo de masque yoo xam ne rek dañu koo jagleel bërëbu jaamukaay yàlla yi ci ndaje mi nga xam ne mu ngi doon amee ci jam ñaajoo